thank you combat bi ak du am nan ngeen di préparer bés bi stade bi. waaw ah, ñu ngi koy préparer ah, ni ko waree rek ñu ngi koy préparer ni ñu ko waree rek mais xam nga rek gars yi moom dañuy wax rek mais ñun ñu ngi préparer quoi même même même bu ñu bëriwul sax ñu dem stade ñun stade ñoo ko moom arena ñoo ko moom. promoteur bi na xam ne ñun barke Serigne Touba Mbacke lu mu bëgg si laamu ñu dañ koy def Zoss même bu ñëwul lu ñu bëgg si laamu ñu dañ koy def Fass ñëpp pare nañ Ndakaaru sax laa Ndakaaru ñëpp pare nañ ñëpp pare nañ ñu ne sos na accident. waaw nan ngeen ko dundee ci woon man pare woon naa bu yàgg si làmb si. mais man maa toog déglu samay mag déglu ñëpp dégg Ndakaar ñëpp di wax làmb ji day am làmb ji day am mais benn instant bi déggu ma déggu ma CNG envoyé message déggu ma promoteur wax moo tax teelu ma kaa gëm kon ñooñu bu ñu waxee du mu leen gëm balaa maa gëm CNG envoyé message wala promoteur yi wax. waaw waxuñu dara moo tax suñu xel dal nuyu quoi waaw moo tax ñu suñu suñu kii wàcc waaw. waaw jërëjëf. ñu ngi leen di nuyu. waaw ñu ngi leen di bu baax kay. waaw dëgg yéen ngi nañ ko bu yàgg kay waaw. mais dafa am lu ci laxasu nan ngeen ko dundee bi ngeen ko yëgee. non sant yàlla rek. sant yàlla bu ñu koy yëgee tamit teelu nañ di toog di xaar xool ndax dëgg la dëgg te buñ toogee tamit dëgg nañu loo xam ne neex nañu combat bi dina am. combat bi dina am dina am incha allah bu neexee yàlla. Aada ngi waaj. non Aada pare na waajatul pare na. waaw aada pare na bu yàgg. kon naan sos stade mu ngi hôpital ba léegi lan ngeen. non nañ xam ne nii lamb ji day am incha allah bu neexee yàlla waaw bu tànk ñu ngi fi moom incha allah non lamb ji am waaw. Zoss moom bu dee moom dafa bëgg a daw lamb nañu wax rek bu dee tamit dëgg tamit yàlla na ko yàlla defal jàmm rek tamit waaw na ñëw si jàmm rek salaam rek ñu daan ko mu ñibbiwaat si jàmm ak salaam incha allah. acca mu ngi noonu gis nga. ziar nañ la maa ngi tudd Jibi dëkk Ngor aara suñu mag la suñu lépp la suñu bër la waaw. fukki bëñ ak ñaari ñoo topp si ginnaawam nag mais day ñaan yàlla ne yàlla may ko ndam lu seddu guy guy guy dañuy bëri incha allah sos day topp ay xalaatam rek day daw rek barke sëñ Fallou Mbacke dem bi ngeen déggee ñu ne sos def na accident ci guddi gi nan la ngeen lan la leen def loolu defuñu kaa ñu ngi toog di préparé ba léegi day ba ñu eggal dernière finition yi rek mais incha allah dañuy dem bëri dañuy daan nañ ñibbi incha allah parce que seen xel dal na bu baax a baax sos nee na day day xeex day pa pa pa ñun Dakar dañu andi de fukki bëñ ak ñaari ñoo ne suñu ginnaaw Ngor wakam Wakaam Yoof kayar te Tëngéej Jéen tubab Jalaaw ñepp ci bir am amuñu am ñi ragal waaw ba seigne Fallu da jëf ba acca kon leer na waaw ginaaw buñu sande yalla jullu ci si bi sande seigne seen ñaari waajur waaw journée bi ñu ngi koy wacc ñu den waaj yeneen journée rek waaw dara changé wu ci waaw ñu ngi nok ñu nok ñu ngi dégg ay rumeur ko waa ay sa dafa def sok dafa wul sok mais liñu war mom moy dañuy dem estate waaw nga suñu mbeur waaw ñu dem yalla may ñun dem ñu ñibisi comme noonu waaw parce que loolu moo ci ëmb importance quoi parce que boo xoolee mbooloo bi gars nañu pour dem stade te stade bi dañ ko war a feesal comme niñ ko doon feesale lu ko raw sax parce que loolu mooy xaar Ada Fass waaw ak jos ñëw tamit waaw ñu am dam ci kawam ñibbi comme noonu waaw parce que daa am fu ñu jëm ci làmb quoi te nekkul combat bi ni moo ñu war a xaw a tardé la wala yooyu noonu waaw loolu moo tax combat bi ni gars yi fonk ko trop ci kanam nii léegi nga gis pul bi gars yi génnandoo ñu demandoo stade waaw ñu jàpp jos daan ko bu rëy ñun tamit dañ koy ñaan ci guddi gi. waaw ah. su la leen def ak bés bi moom métti woon nañ trop mais ba tey dañoo gëm ne ñun dañuy bëre quoi ñun loolu la ñu gëm ba mbër bi benn instant démb jékki-jékki na génn fii gars yi xaw a zibilé ñëpp xam ne ne jour suba combat bi day am tey booy dañoo xëy fajar génn kon xam nañ ne tey kon jur bi day am quoi ma loolu laa gëm. mais dégg dégg nañu ay rumeur kay ñi am na ñu nekkoon stade ñu ne combat bi ñoom dem nañ ci jos jos nee na mun na bëre kon loolu la ñuy jàpp parce que art dafa lek avance mom liko war moy moy mu dem stade remplir contrat am mais sax buy ñew mu ñew bu ñewul tamit dañuy dem stade li ñu war ñu def ko parce que lool mo ñuy xaar ko wa wa di ñaanal ñepp jàmm di ci woon dakar ñepp gaay japp ci si combat bu wax ñu jàpp sa daan waaw combat bi ni mu toog waaw waaw ak itam yal na ko mu am jafe-jafe yi ak jàngantoon ci ginnaaw mu ñëw rek dalaat ci kaw sos est-ce que mënu leen itam tur ba ci biir combat non jafe-jafe amul affaire yi nattu kese la wóor na rasulullah jafe-jafe amul le. nattu kese waaw te aada ku ku ko xam ne xam na ne aada jàmbaar la bëggoon na làmb fonk na ko aada moom loo koy waxal moom di ko waxal lépp lu dul làmb moom làmb moom waaw da bañ na ko ba koy da koy wax sax ku koy jàppale na ko jàppale si làmb kon kooku xam nga ne bëgg na làmb waaw loolu la ko waa mais wax dëgg ne yàlla moom waajal nañu pare nañu te sax bu ñëwee SAT dañ koy daan incha allah waaw loolu moo ci ëpp solo ko waa ah, defet digganteem ak Sarko. ñëw dalaat xam ne moo ko mag ci lamb muy grand ah. waaw loolu lépp lamb la sos instant yii boo ko daanee tamit sos tamit moom daan na fi xam ne moo daan roi des arènes. sos daan na xam ne moo daan roi des arènes waaw sos moo daan boo ñaa te boo ñaa ñëpp gis nañ moo daan Balla kon bu aada daanee buntam day ubbeeku waxuma ay guy gi rek ay ñoom Sadio ñoom Reug Reug yëpp mën nañ taxaw xaar waaw parce que lamb bu duñ toll aada la a soxla sax ko ñëw yoo xam nga li lay wax bu baax waaw loolu la ko waaw. waaw ñu maa ngi siyaar bu baax. yaa ngi si jàmm bu baax. naka am nga jàmm. waaw ñu ngi ko waaj bu baax a baax kay. ñu ko waaj bu baax a baax. ah ñu de ñuy waaj làmb ji dee bu ñu jékki-jékki dafa def soog. xam nga ñun moom bëggee wuñ ko woon nii quoi. mais ñëpp xam na ne Zoss nit làmb la quoi xam na làmb tamit mooy loolu noonu. xëy na yàlla moo ko dogalee noonu quoi ndax ñun bu jël bu ñëwoon tey tey dañ koy daan amul sax wax ndax aara préparé na làmb ji ba ñëpp xam ne aara préparé na làmb ji te tamit am na doole billaay bu ñëwoon tey dañ koy tër amul sax wax moom moom na fee moom bu mu wala soit ñu jël suñu victoire waaw nga koy mu bëre wala mu xeex sos moom nee na sos lu mu def daanu sos bu doole te aada xalal tamit mooy loolu waaw bokkuñ sax saa ñun xooluñ sax Zoss suñu bët teg nañ ko feneen mais xooluñ sax Zoss war na yàlla. si nañ waaw gis ngeen ko noonu. Sëriñ baa ngi noonu Sëriñ baa ngi noonu waaw mu ngi noonu. waa kër aada moom saa yi nii def lépp lu ñu war a def lépp loo xamante ne nii rek war nañ ko def ñoom ñu ngi ci na li des ngir aada dem bareetul Adama bu amee combat day teel a génn teel ay siport mu ngi noonu di saraxe banaana yi waaw mu ngi noonu lii mooy won ne combat bi fonk fonk nañ ko bu baax a baax a baax liñ doon def rek la ñuy def ba léegi waaw mu ngi noonu sëñ baa ngi noonu sëñ Mor sëñ Mor bisimilah waaw banaana yi de moom macha allah <laughs> banaana yi daal macha allah waaw waaw. <laughs> waaw. ah daa ngi ci woon li mu war a nekk def na li mu war a def. waaw. ñaari minute rek sëñ Mor ndeysaan borom Malika ñu ngi lay ziar bu baax sëñ bi. maa ngi doon ziar wér wér. mbaa yaa ngi si jàmm. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. ñu gis ni nga sonnee ci combat bi depuis open press boobu léegi. waaw lii bis bi moo toll noonu. ara nana la ne xale nekk si yoon jóge si defet am ñu taxaw ñu dem na sos ñëw bëre rek tey na sos ñëw rek incha allah. sos ñëw ñu bëri. na ñëw rek mais mais bi ngeen déggee ne dafa accidenté lan la def ci yenn. loolu te xel la rek. lan la xel. te xel bi lay day daanu. tey day daanu. kon yéen a waaw dinañ dem stade dinañ jëm dinañ dem stade def lépp lu war a def. ban heure ngeen bëgg a def. 15 heures bu soobee yàlla. 15 heures ngeen bu ñu ñëwee stade bu toogee lalam day daanu bu 10 heures jëlee mu daanu. borom Malika ngi noonu ndeysaan ñun làmb ji moo ñu fi indi quoi man maa ngi jógee ba Géraw waaw Géraw côté Somone maa ngi jógee waaw ba côté Somone kay mais ñun combat arafas moo fi indi Abakara moom sonn na si sa waay trop billahi jàppale na sa waay trop billahi mais combat bi ñun ndam rek la ñuy séntu quoi barke alxuraani karim Zos ñooy dégg mu na ay daa blessé ak yooyu noonu yooyu noonu dawul suñu yaram combat bi yaa ngi ko engagé bëri ko. so combat la ya ko engagé bam mu ñëw ba fi kay bari ko mu dem ba toll fi tay nga mala suma nga tek yo xamne kenn mënu ko gëm quoi combat bi ñun liñ ci bëgg moy ndam rek inshallah yalla yalla may mais arafas ñu moom arafas dañ koy yàgg bëgg suñ boy ñom mo jóg sama xarit yi ñëpp billahi ñun arafas rek lañuy top waaw alu mineur man mineur la bu ndaw sax billahi mineur la bu ndaw sax arafas rek lañuy top barki alquran wala demé waa Abakara ngi noonu am loolu lu jox gaa yi. gaa yi maa lay bu baax lépp jàmm alhamdulilah. waaw ñu ne noppi nañ billaay walaay noppi nañ de waaw noppi nañ waaw. lan ngeen ngeen di xaar estar. waaw estar kon ni ñu doon demee rek mobiliser dem bàqu mu neex dem bëree daal ñibbisi kese mais nag daa benn message boo xam ne ma bëgg a sànni maanaam magum làmb yi mbëri mag yi ay zos ak yenn tonor yi dañu yi saboté làmb làmb. mooy suñu ligue nationale ñëpp moom la ñuy suivre tey boo nekkee sa liggéey danga ko war a fonk mais bàyyi ay caaxaan léegi dañu tàmm làmb bu neexee neex signature suñuy dimanche la rek dañuy annulé ay làmb loolu day yàq làmb loolu day rey làmb nit si li ngay liggéey nag yaa ko war a favoriser yaa ko war a dooleel ñu bàyyi ay caaxaan ñu fay la ay millions nga xëy naan damay dawlu scooter rek dama def soog yooyu du yëpp responsable gars yi nañu fonk làmb yi bu njëkk ba mag yi bañ daan bëri ay Moussa Faye ak ñeneen ñi dañ feebar sax ji poste ji ñëw ay mbéy géey seen bañ daan wadd ñu koy wane ji bëree si mais am na loo xamante ne moom yaa war a favori favori yow yaa war a uh, jox sa sa liggéey gàdd gëddëm yaa ko war a jox cër yaa war a fonk sa liggéey waaw loolu am si lu eh, bi ngeen uh, toogee ba dem ci guddi ngeen dégg ñu sos dafa génn yor moto def accident nan la leen nan ngeen ko teg non ñun la ba jàpp ñu ngi nekk suñu làmb parce que sos soomaan la mag mu jëmm mënu ñu la fay ay millions làmb des benn jour nga naan da nga yor ay scooter loolu waxu caaxaan la ñun suñu contrat dinañ ko remplir dinañ dem su ñëwee baax na bu ñëwul mooy loolu. mais promoteur bi wala waa CNC déggante wu leen na kenn. non ñoom ñëpp nee nañu jos lay bëree si. jos lay bëree si si day bëree si waaw. acca kon ci kanam jaajëf jàmbaar. ñoo far waaw. acca mu ngi noonu kon sos day bëree si loolu kenn mu xel baa ngi noonu. waaw waaw. xela a ngi noonu Ada Fass. laa ilaaha seetet tet nee na jeex na Ada nee na jeex na dugaat na ci mu ngi noonu Fass a ngi noonu la ilaha illallah eh le baa ngi noonu lay fay baay. alhamdulilah sant yàlla bu baax waay. waaw ngeen di nekk ci préparation dem stade. waaw loolu la ñuy def nii di waajal aada ci xel mu dal ak xol bu dal. mais papa dafa am benn nouvelle bu ñu déggandoo ñun ñëpp ci dem ci guddi ñu ne Zoss dafa def accident est-ce que ngeen ci dara. loolu bu amoon conseil du dawal moto munoo jël contrat bu jàmbur ba dara desul lu may ñaari fan. ngay dawal moto dafa def lu ko neex day wax lu ko neex teguwul fenn. mais yéen déggu leen promoteur yi wala CNG. non non non. Ah, da ngeen di def li leen war daal. def bu ñu joxee a victoire ñu ji. incha Abdoulaye Thiakhane yow da ngay yëngal lii rek bàyyil wàccal Sané carton boobu lan la def gis ko noonu so y'all can know. waa sëriñ bi na doy oto bi daa fees gis ngeen ko noonu oto bi daa fees liin foo ngeen wut ñaari oto oto bi fees na del Acabou o ngi noonu salsa nañu bagaas boy mur auto bi nonu ndaysan señ Bada ngi noonu jërëjëf Ada père ngi lay ziar ngi lay ziar di nuyu ak Ada war ko war sos ngay code su bi di tey loo bés bi. dafa ala daw me te yéen xam ngeen ne bés bi dafa ala daw me Zoss ci boppam la bàyyi caaxaan parce que mënoo am combat war a bëre mu dese la ñaari fan ngay dawal moto yab yab ñi ko tëggal combat la mais mbër dëgg-dëgg bu amee combat war na moytu ñaari ruur ah combat bi nag ñu ngi wax dana am du am mais ñun li nga xam ne mooy suñu wóoral suñu diggante ak euh, jàmbar production mooy ñun ñu ngi ci danañ yebal aada mu dem bu bëree baax na bu bëriwul ñu jox ñu suñu victoire ñu dem. à part loolu c'est la deuxième fois ngeen di dajeeg mbër bu leen ëpp expérience ci làmb ngeen jóge ci defet euh, sport bu bëree expérience aussi bëriwul. que bëree ren na ñàmbi la quoi kenn xamul fu muy demee kon kenn mënu ci wax loo xamul man mi di waxee nii dama bëre ba bàyyi bëri man ak xaadim ay gaañal lañu ak biran kumba bi gaañu rek mu may waxtaan lu lu muy ku ki ñaan ku la barka te fu ko fa la koy bay ñu ngi maa ngi waaw ci kanam père dinañu amal yeneen waxtaan. amul problème yow ñun xam nga ne amuñu lu ñu tiit ñun gaynde lañu kon te ciment lañ ba noonu la ñuy tooy. voilà jërëjëf merci beaucoup. acca mu ngi noonu. kookoy père coach su Ada Fass. jëf maa ngi soose soose di coach di technicien ci làmb maa ngi lay ziar di la bëggee. maa ngi lay bëggee bu wër Mamadou di la jox sa wàccuwaay di kontaan loolu lu nga teew fii suñu comité jël si waaw. soose tey ngeen war a ëmb Ada Fass yóbbu ko fi nga xamante ne mooy arène nationale muy dajeeg deuxième fois koo xamante ne moo ko expérience ci làmb yow kenn du werante sa xam ci làmb ak sa sa sa sa technique loo ñu wax si loolu. waa dëgg la ñu ngi bëri adversaire bu doy waar sa waaw man daanaan la sa làmb def ay preuve am daan ay daanaan yu bëri adversaire bu ñu jox la minimum xeebuñu ko nag adversaire bu ñu jox cër la. waaw mais nag ñun am nañu argement yu wóor yu jox booy bi yoo xamante ne bu ko appliqué rek yàlla mën na ko defal su turee si combat bi incha allah. ndax mën nga ñu cee ñaamal tuuti ci argument yooyu. waaw mais si wàllu bëri rek xam nga kuy dem guerre moom doo doo joxe say say kii mais argument yi la parce que waa ji dugg na Fass duggaat Fass bëri na ak samay samay promotionnel bëri na ak Balla Diouf bëri yoon bëri ak ñaar ñaari yoon xam naa ko bu baax xam naa ay qualités bëri na ak yeneen daanam xam naa ko bu baax waaw dañ respecté moo tax nga koy daal ko cër moo ko ñu ci bare bare dañu ne Ada Fass mbëru tànk la sos mbëru mbëru mbëru loxo la gis nañu ay adversaire am yi mu jaar fépp am na fu mu am na fu mu jaar am na fu mu jaar ak moom tey avantage su Ada Fass ci combat bi lan la. Ah, Ada nag Ada moom Ada dafa yàlla dafa def moom mbëru lépp Ada day bëre tànk la bëre loxo boo ko songoo day bëre te moom day day day song boo xoolee moo jokkeel moo ko jël si moo tax mbër moom moo jël si te ñi ko jël si ñëpp da leen daan si tànk kon koy yokk rek xamal la mag moom na ko jox cër ak argument yi nga ko jox mu respecté ko bu ko respecté la yàlla da xeex bi amoo lenn loo ciy tiit tuuti parce que aada xaw na feebale foofu tuuti parce que mën nañu ne combat bu nga xamante moom la mujjee ñàkk digganteem ak Ondelefu euh, avant avant ki nga xamante ne mooy Sarko li ko ñàkk loo xeex ci la bokk daf ko des daf ko desee man ndax tarwaay na ngeen loolu ci diggante bi waaw si diggante bi aada xeexam mu ngi progressé bu baax a baax mais combat bi euh, maanaam ku la boo xam ne mën na ñëw wóor si xeex fekk du dëgg si pour nga jog rek moom mu def ko que ah for foram moy nga jog mu mbar la tafa te lolou foram la xam nañ ko si moom bu baax baax kon bu ñuy xeex moom tam xam na naka la ñuy war a xeex moom tam loolu loolu nañ ko ci mhm. Mamadou waaw ante sosé maa ngi lay jaajëfal ngay legi jaajëf Mamadou content na ci jaajëf asalaamaaleykum wa ngoy ni abonné tv nga dem abonné nga mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko IGTV bi meilleur Ngoye TV c'est meilleur ñu leen di ziar dina ñaanal jàmm di ko sàkku si